file ak fee ku mel ni waa jëfa Tuuba ba mu feeñee léggiti waa me ci suuf si wal mi tey dem naa siyaaki Oroba maam daam ña ko toppoon defar na leen ba ñu sottee lañu raw gaaña gànt woon fa cëroo baay wuyu leen jant baa ngi dem na ba njolloor jumi yi soril na tilla ki koo baay sëriñ Tuuba amu feeñe l'Afrique ami xéewal Sénégal jël na lépp ndam fa gëroo baa gore leen sant yàlla ngir ki mu leen may la rasuulu yi damoo keroog fa janoo baa sëriñ Tuubaa ki la taaral na der bu ñuul ba xeeboon urubëg ñooñ arab di raame fa tuubaay kile moo yor donol rasuul mi nuy roy ku ko toppul lu raw ëllëg te xuloo baay kile moo saytu doli waaya ju ko soppul moom dana sooy buñ ko man da xaafa tëroo baay bari ndam saytu sañ-sañam bu ko soobee moom dana seexal ku suufe woon firuloon baay Sénégal gore leen sant daam ku weddi amul jom te amul xel te kiilul fanaroo baay Afrika buñ ko xeeb woon boo fa yóbboo Ahmadu mi mu doy ko nam ndamoo baay Afrika buñ ba woon boo fa yóbboo Ahmadu mi mu doy ko ndam fa ndamoo baay Ahmadoo gën ci nun jamaa Mamadoo gën pétrole gën wurus keroog fa xëccoo baay Afrika xeete leen demam ci nu may ndam tuuti kon der gu ñuul di jamu robaay afrika fete len demam gi nu may ndam kon dar bu ñuul di jamu roba afrika fete len sabar tanu manko soppi sun bakiri wi kan ka fatuba jang len dam su ngeen development afrika bamba modi di solution ba jàng ngeen bëggee développement Africa Bamba moo di seen solution ba sunu booloo ta soobu yoon wi mu xàlloon Europe dootu witt ndam fa gétoo ba Sëriñ Tuuba la mu sancoon ci suuf si réew mi tëggintul moom dana yem mépp xel keroog celi moo baay la mu daa gorlu gaaña bay kota buuyul moom dana gàcceel la dee fi teeru ca poor baay moonu tàggat ba nit di doyloo boppam ba du tàllal loxoom lu dul ca nuyoo baay sëriñ tuubaa moonu tàggat ba doomi soxna si dër di defar jaafuraa ki baa moonu tàggat ba wuude yey bind kaamil gërmi yey tëggi gaayali weñ ak xoobaay moo nu tàggat ba guut yey bind kaamil gërmi yey tëggi gaayali weñ ak xoobaay moo nu tàggat ba doomi buur yi soli sor gàddu ay mbuus di mastataayi fëppey baay moo defar cerno faati ba mën a may ndar junni bi saaku yuñ boros bu ñu ko moo defal Sidi Anta Njaay la ca gaalam gamu ëpp bit si réew mi ca boobaay moo defar Seex Mandumbe ba mën a perngal junni bi ton gëléem ya yóbbu ko Tuubaa moo defar Seex Abdu Rahmaan ba mën a jàngal junni bi ndaw te doo fa seeru geraw baay moo defaral Seex Masamba ba mën sellal ya ko toppoon xëy fa seeki sunu baay moo defar Seex Ibra Faal ba wommat baraga teeñ kub demeel camaro baay moonu wan yoonu Afrika mën a aw tey ba du faaleeti ñooñ Europe fa dogoo baa Sëriñ Tuubaa moonu wan yoon wi Afrika mën a aw tey fa du faaleeti ñooñ Europe fa dogoo baay mani baas sant Bamba war na la yow ngir si na lay ndam te sooyuloo fëdd noo baay fa salaatul ilaahi yàlla na tooyal lu dutum musawaa di wal ba fa tuubaay fa salaatul ilaahi yàlla na tooyal rawdatu mustawa diwal ba fa tuubaay للرحمة من الله البديه خير من الدنيا وما فيها جميع